mi ngi fii euh, côté Tamba donc euh, si lañu jóg teg suñu dispositif cest dire euh, teg ay gendarme ci route nationale yi mooy maanaam route nationale numéro un mooy tali bi nekk diggante Tamba ak ak Kidira beneen bi tamit numéro 7 entre diggante Tamba ak Kédougou donc ay côté 10 heures benn mooy suñu motocycliste ren moo kon ni gis nañ fi benn T max bu romb. waaw donc bu ñu ko dabee mu fekk ko station d'essence bi nekk euh, Missirah après bu ñu ko laajee question mu ne effectivement si la ne effectivement moom ak Boy Djiné ñoo àndoon après quelques minutes après après benn oto tamit ñëw benn oto particulier euh, euh, ñëw ci motocycliste bi bi ñu koy interro bi koy interrogé ci la effectivement moom moo transporté woon booy Djiné mais mais dafa wàcc dugg ci biir dëkk bi donc ci lañ mettre beneen dispositif cest à di wër dëkk bi yëpp ensuite commencé di ko rechercher que élément yi nekkoon ci ci entrée euh, village bi mooy missira après seen ko muy daw ci lañ ko dab jàpp ko te bi ñu defee ci une vérification gis na ne effectivement moom la Baye euh, euh, Modou Fall alias Boy Djiné donc ensuite bu ñu ko fuyee fekk nañ ci moom xaalis même ñeneen ñi tamit oto euh, bi tamit bi ñu ko fuyee tamit fekk nañu fa ay matériel matériel bi ñu utiliser souvent pour def ay ay cambriolage moom ngeen di gis ni donc actuellement ñu ngi préparé puisque waa Dakar ñoo yore l'enquête bi ñu ngi préparé pour transférer ko euh, Dakar. ñi ko àndal ñii ay affaire bi affaire l'enquête la te ñu man euh, peut-être ci ni ñu def ba jàpp ko ci lu ci loolu rek laa leen mën a kii loolu rek laa leen mën a wax. mais pour enquête bi moom waa section de recherche ñoo ko yore te je crois que ñoom euh, dinañ dinañ ko def incha allah. waaw comme yeneen euh, comme yeneen euh, unité gendarmerie yëpp parce que ñun bi ñu jotee information au même titre que yeneen unité gendarmerie ñoom tamit jël nañ seen matuwaay ñun tamit fii tamit teg nañu suñu dispositif ba tax na te moom ñoo ñu mën a jàpp Boy Djiné. ban section ci gendarmerie moo def liggéey non bi parce que fii dañoo am lu euh, ñuy wax euh, jeune euh, unité territoriale mooy brigade yi nga di gis ci tali bi ak brigade routière bi mais am nañ tamit escadron mooy unité mobile mooy escadron de surveillance et d' intervention donc te bi ñuy def opération bi ñëpp laa boole ñëpp laa dajale muy brigade routière yi muy brigade territoriale yi